ak Rafah TV ñëppay dañ agréer rasulullah ay ala salaati ay ala alfalaahi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah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 allahu akbar ak kuba السلام عليكم waxaat alhamdulilahi rabil alamin ci teew gi nga xam ne da di si daaw teew nañ ko ci barab bii teewaat ko ren ñu ngi delluwaat di ñaanal yàlla yàlla nañ teewaat déwén Mbàkke di ñaanal sama mag yu baax ji Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla ko fa yàlla bàyyi te wéral yi delluwaat di ñaanal sama mag yu baax ji sii Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdou Lahad yàlla ko fa yàlla bàyyi te wéral yi ak mboolem ku bokk Cheikh Abdou Lahad ak ku bokk Sëriñ Tuubaa Xaadimu bis bii kat ginnaaw yàlla ba mee ñooñu mi lim ñooño sa ñëw fii lépp ñoom rek ngay déglu ñoom rek nga jox kàddu xooloo dara gisoo dara ñoom rek nga gis waaye mbàkke nu ñun suñu bopp nu taalibe yi ñu ngi yëkkatiwaat ci biir ñaan yooyu beralal sa ñaanu bopp suñu borom sàmm la mbàkke aar la te wéral la te yàggal la suñu kanam féete gi nga féete taalibe yi rëccu wunu ñëpp la marqué ñëpp ko bàyyi xel koo gis koo gisul ku julli ak ku yeewu ak ku ne ci lu baax lu ne boo ko yëg boo ko yëgul li nga wax ci làmbañam sama soo yàlla fa yàgg yàlla wér loolu moom wax la boo xam ni walla ban na siiw na kawe na kon bàkka yàlla yàlla na ko ñaan dara jëy Seexul Xadim kon bu ko defee bàyyi fàllu astu fall bàyyam daa wax ni na ñëw jël kàddu ci kàddoom ndax mooy porte-parole daayira bi rawat na fii muy kilifaam mu ñëw yëkkati kàddu bu noppee dana jébbal kàddu gi sëriñ bi waxtaan wi ki koy defal moo di alaaji Fallou sa Diagne moo di defal waxtaan wi ci dundu jàmbaar ja Sëriñ Tuubaa Seex Abdul Ahad Mbàkke ka julli ca pale ba ca Ndakaaru ngir lan pas-pas ak jaamoo ko yàlla ak xelam dem ca keroog Seexul Xadiim waajuram ba kàbbare ca biir géej gi ca bi loolu moo waral keroog waxtu julli bu jotee Seex Abdul Ahad xaarul dara taxawul dara fekk na ko comme jàpp taxaw na julli ko na ko war a jullee fa njëkk a def moo ko moo tax dama naan kabar ba Sëriñ Tuubaa kabar ci biroge war noor ab sëriñ di ko tolloon ci Bamba yaa di góor waaye kabar ba Cheikh Abdoulaye Mbacke kabar ca pale ba ca Ndakaaru moo ko fa jëkke moo ko mujj du keneen keneen ñaareel la ku kudul moom kon jàmbaar joojee yàlla ko yàlla fayal Cheikh Abdoulaye Mbacke yàlla na ko yàlla fayal ci darajey waajuram ba Sëriñ Tuubaa mënoon amaat ci moom yaakaar yaakaar ji tasul kon Baye Fallou Fallou ak Sufal waaw kon Baye am dina ni mu ubbil ko jotaay bi rek keroog moom buñ ko ku ko jege nga ne ko suñ koy xaar ci micro bi bàyyi fàllu bismillah bàyyil mi asalaamaaleykum maa ngi lay siyaar di sant di ñaan ci barkeb Cheikh Abdoulaye Mbacke foo jëm yal na fa yàlla àggale la dara dog daa wax ne sëriñ bi ni ngi ñaan yàlla bu la dara dog Mbacke ndax sagal ndax nee na sagal nga ko Mbacke sigal nga nu ndax lii nuy woote ndax nee na lii muy woote moom ak mu jot war na képp ku yàlla a rawatina nga di taalibe Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul Sëriñ Tuubaa sa maam daa baaxoon fu mu dem fu ne julli fa ñaari rakka ba muy julli ñaari rakka yi sol ci soow ca Ndar du waxtu woon de daa si rek war ko def ci jataay ba waaye waxtu jot nga julli ci biir géej sa maam rek ko jëkk def Seexul Xadiim waaye waxtu jot nga julli ci pale ba Cheikh Abdoulaye sa bàyyi ko jëkk def moo ko mujj def Cheikh Abdoulaye Mbacké boobee nga xam ne sëñ baa ngi julli ca géej ga boobee nga xam ne sëñ baa ngi julli ca géej ga ànd naa ak sëñ Aliou Ndiaye sëfooram booba Alaaji Fallu Mbacké magam ju baax dama ko yónni woon ñu am ñu doon warante ca teres bi ca Abidjan ca Côte d'Ivoire ca daayira boobee yàlla suñu borom dogal na sëñ bi ànd ak Aliou Ndiaye yàlla suñu sëfoor bin weesoo ba Conakry la sëñ Abdou Lahad joxoñ euh, la sëñ Maam Mbacke daal di dóor aw al Aliou Ndiaye ni ko Aliou Ndiaye ñëwal ko Aliou Ndiaye fii la ko Mbacke julee woon bokkul la Cheikh Abdou Lahad Mbacke demee te ko magam jël sëñ la jëkk-jëkk woo bàyyi ko fat aw ko loolu ko baa ngi ko nattable rek da ngaa xamul xew bismillah bismillah rahmaan rahim barki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi nuyoo di leen siyaare di jéggalu bu baax ci jataay bi di dolee sant bu baax di leen jottale nag nuyoo sëriñ bi ndax moom di dafa bokk ci ku gën a yitteel di fi jottale ay kàddu yoo xam ne yu gàtt lay doon ndax waxtaan wi bañ a guddi kàddu yi mooy jëm ji nga xam ni moo jëfan jëf gii boole ko ci ay jëfam noonu di ko fàttaliku ndax fàttali dañ ko fàttaliku dañ koo digle dafa am njariñ moom nag taxawaayu Sëriñ Tubaa rek la doon wane ay waxam la doon wax te Sëriñ Tubaa wax yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la doon wax li ko suñu borom yónni woon ci bindéef yi mu doon ko jottali moom la doon leeral moom la doon ci wàll yépp bi mu nekkee feeñee ci nit ñi ak bi mu fi bi mu fi nekkul ndax bi mu fàddoo bi mu dikkee mbind yi nga xam ne yëpp indaale na ko wane nañ ci loolu rek la nekkante dara mënu woon dox ak lool diggam ak loola jëmmi sëriñ yi nga xam ni ci la ñuy wax tey ndax mën na na wax sax ni njabootu sëriñ Tuubaa moom benn benn lañ waaye kenn koo ci wax kon foofu loola sax ngay wax tey moom it man de sama kilifa neena ma wax na ko bis ni ko sëñ Mbacke Fall na ngeen yëg ni di maslaa de fas naa ko yéene saq ak jullit yëpp waaye roy de moom kenn laa ko saqam yi jëmmi sëriñ Tuubaa ji nee na wax na ko loolu fa ngaay loolu nag de na ni bi ci ay jëfam yëpp yées ci mën a xam wane na ni loola rek ci la nekkan boobee bii mu sañee yëkkati kàddoom di wax itam lam doon yàlla foofu di ko wax ak ñooñam moom rek la wax ba soppikuñ te wax àgg na ci gim giñ ko àgg na ci waxin wu mu wax ko ni yaakaar jooju yéen ñu amoon sëñ Tuubaa amoon ci man wax ci wax ci yaatu yéen yëpp dégg ngeen ko. kon nag mu ne su ko waxal dara moom lu dul lu mu waxan bii mu toogee te yekkate kàddoom li mu njëkkee digle mooy nu sant ci nu jaamu yàlla nu gëm yàlla te dëral suñu gëm di sant yàlla te xam ni ab jullit li ko sunu borom defal ba sant ko war ko ba ko sunu borom defal xam ko ba di ko ñaan sunu borom moom xaas moo dimbali dimbali boppam nu doon xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam nag sunu borom moo def lépp ci coobare boppam bi mu jubloo ci loolu mu bind bindee fi ci ci ci ci ci daraja yonante bi teral leen teraanga jëm leen teral léegi boo ko yàlla dogal nga bokk ci xeetu Muhammad gëm yàlla war ngaa sant yàlla baax a baax. kon wax la waxtu wane sant yàlla leen war a def te ak sëñ Abdoulaye nag sant ku ko def te la ka sant nga di lu wér ci yow mu am dig mu diglee la mu lee dañ see ne kon nan sant yàlla te jaamu yàlla te ragal yàlla loolu la sëñ Abdoulaye jëkk a wax ñun ñëpp nañ ci ne te dellu ci li ci des itam waxtu wi waxtu wu masa agsi ndax la mu doon wax rek ci la ñuy barkeelu waxtu wi waxtu wu masa agsi foofu mu yëkkati kàddoom bi mu ko sañee wax ñépp wane ni sunu borom day moo digle ñu jaamu yàlla te moo digle ñuy natt asaka kon na mbay mi waxtu lu ci bàyyi ko nañ ko sellal te natt asaka du ñu sellal ko loolu ginnaaw àgg nañ ci waxtam te daana ko wax bu ñuy nettali mbiram ñu tàmbalee ko ci ndax ay moom ay waxam mënitu ko jeexal ndax waay waykat wi dani bi mu tenkee turam bi di wax dañu xoolal jëfam yii mu jëf yow benn boo ci xalam doy na xalifatu yam foofu yëpp beneen dal wax yëpp njariñ la yu mën a jariñ su mën a jariñoo la tolloo naa lu ca bis ba agsi rek ñu wax ñu ñu ñu te tomb booba fàttalente ko ndax fàttali gi day suñu njariñ ginnaaw nag li ñu digal mooy jaamu yàlla di liggéey te bañ ko bokkaale loola nu fàttali ko dala ci suñu fàttaliku te xam ni moom la moo moom waran bu yàgg-yàgg ginnaaw nag moom yii nu waxante muy topp nga xam tan ko topp Sëñ Tuubaa moom rek lan gëm moom rek lan am ca loolee la nekkan moom la digle kii ko doon nettali moom rek ca man ñoom waa ka ñoom ñëpp maatan di ko fettali di ko fàttali nanu ne ca te muy dëgg ci te bañ ca bu ko wutalum ñetteelu ne ca loola rek lii ci des nu xam ni ab taalibe dafa am nu mu war a doxe noone dëgg la ci ñan ko saxawal sañawaxal waaye nu di ko fàttaliku te di ko doxe te yam ca te xam ni moo nu jig laneen jigunu nan parce que def loola bu ci xëy na bu ñuy waxtaan dañ ko gën a yaatal ba nga xam ne noonu dong de taal bi war a def te nag rafet njort nag ci boppam ndax ñun dañ ñoo digal ndigal li nag mi ngi fi ni jon te dëgg la war a ci waxtaan waaye loolu lépp waran ko bàyyi suñu xel ba waxtu wu nu jógee ni ci moo xam nag mag wala gone ku mën a doon wàccul kenn ndax ñëpp la ko boole li ci des nag <coughs> jotaay bi yàgg na noo ngi jégalu di fàttali cant gi xam ne noonu ñëpp kon cant gii dañu war a sant ndax sëñ Blaat dogg googee mu doggoon wax ni jëmmi Serigne Touba ji rek lay roy xëy na mën na ko boole rakkaay yooyu ñuy fàttaliku ni kon rakkaay yooyu ca la ko ca ko royee ndax kooku ko woon ci yi la bokkool taxawaay taxawaay taxawaay boobu la taxawee waxtu wu mu ko woon nit du waxtu bu ñu war a koo xam ne ku ñu julli la ko koo respecté jàpp ni waaye nag sëñ Blaat moom dogg ci farata ji moom lim li mu bëgg a def. kenn du dox digg may def ko moo joxe ndigal ñu ñu nodd booba sëñ Cheikh Mbacke ngi ci mbooloo mi mu taxaw jiite mbooloo mi sëñ Bachir Fall nee na ma julli ga lu yéeme la ndax ñi julliwul dañoo am jaaxle bi ñu noddee rek nodd gi daa mel daa tiitloo mbooloo mi taalibe yi jullit genn wàll gi julliwuñu dañoo daanu di jooye ko def yëf mu def loole mu julli gu yaatu la goo xam ne bu fi xajan moom den ko nettali fa mu tàmbali ba fi mu ginnaaw nag loola moom julli gaa am na tey suñu borom taw fexe na nag nun kenn ci ñam ànd kenn ci ñoom ñoom ànd ak nun di nu jàppale ci loola nu di ko sant ca loola di jëfandikoo loola yàlla na suñu borom na suñu jëf ci ca loola te bàyyi fii jëwriñam ji nga xam ni yitte sëriñ bi rekk ko yitteel ak jàppale bindeef yi loolu mooy yitteem ndax day liggéeyal bindeef yi di liggéeyal sëriñ Tuubaa ci bindeef yi am nañ ci lu wér te yaakaar nañ am na lu ngeen ci xam. kon nu ñaanal ko noonu koo suñ bi waxee nu ñaanal ko mu gudd fante amuk wér. Mm, mm. Euh, te yàlla yàlla dimbali ko bu baax ci lu mu bëgg wala mu bëggal ko suñu borom fekk ko ci jàppale ko ci. Mm, li ci des nag kon nañu am jom te dooni gor te am pastéef te doyloo sëriñ bi te muy dëgg ci noonu ndax am na yoo xam ne yii mënu la ànd jéem leen a bale ak yàq rek lay doon. moom mii di suñu jëriñ kat loolu ci la ne te bëri ko leneen te kat bu gees woon mbaa mu tàllal loxoom yeneen dikk mu recevoir ko dendale ko waaye xam ne mënuñoo ànd amul soxla ci kon fi mu ne na yoon wi mu jaar nañ ci jaar te yem ci te bu kenn gisuma woon sëriñ bi wala sëriñ bi waxuma nangam ndax moom li mu war a wax ay waxam bëriwul waaye bu jëf moo wane wax moo ëpp doole waxtu wane mi ngi ci ndigal moom foo ko seen mu toog foofa te loolu rek lay déglu lii bokk na ci ak yeneen yi demee nii te ndigal yi dafa mel ni ñun yëpp ci noonu rek ci taal bi rek la ko jëmee di nu dimbali kon nag wuti ma noonu dara faneen lépp sëñ laa tegal nañu ko fii te mate na ko yàlla na yàgg te am wér te képp koo xam ne te nga fi seen borom defal la ak te boole la ci barke julli googee yàggal fi sëñ bi yàggal na fi barke sëñ jërëjëf sëñ am bi jërëjëf ñu fi nekk ñëpp ak ñi nga xam ni ak guñu wala ñëw nañu ba dem te lii amagul waaye noo xam ne sant daal ak ak te ndax moom mii koy defit ah, ay bokkam la ko àndal ak i xa am jàmmam yëpp ñu ngi jottali ak sant ñëpp bu waaye ne na xam ne ak cantam ak na ci moom góor ñi ak jigéen ñi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yàggul ci moom lañ ko jëkk a ci kàllaamam moo ko jëkk a yëkkati moo tax léegi ku doon sëñ bamba gars yi dakkante la sëñ tubaa diw ba ci sëñ mu taxaa sëñ mu taxaa sëñ tubaa lay wax kon kookee ren ji moom la ko tuddee dem na ba ci sëñ Moussa Nawel yëgal ko ko jëf na ci jëf ju rëy ànd ak ñun bis bi ci taxawaay mat sëkk ànd ko mbooleem kër ga rawat na seen bokk mbaax ma ne ca kër ga di seenub jigéen di soxna baali moom sëñ soyebu lu dégg ko sëñ mun taxaa mbàkke taxawaayam ci bis bii feññati kon loolu la bëgg a leeral rek mbàkke waaw nga la ko yebal sëñ Moussa waaw noonu ma ko fee ak moom sëñ suñu bu mbàkke la fi ñëw ñëw la fi ñëw ndax neexaw ne ma ne def nga loo xam ne dara mosuma ne neexal ma gën laa leeral ne la si Moussa si Nawel mi nga xam ne mooy xalifa si Moussa Basiru sa mag ju baax ja bis bii bi mu ko yëgee def na ci yitte ak ku yëg ak bàyyi xel ama na yéene teew waaye fa mu nekk sëriñ ba nun ñi la fa nekkal loola waral mu jël ay ndaw doomam sëñ Moussa boole ko soxna maam Faati Mbàkke moom sëriñ soxna bu lu gën koo xam ne Faati Nawel lu teew fi indi fi teraanga yoo xam ni defar na bis bi ba bis bi jàll kon ñu ngi lay seere ne si Moussa kat bis bi yëg na ko lool te bëgg na ci lool waaye nag kin ko tuddee di sëñ Moussa suñ Basiiru day jàmbaar joo xam ne jàpp naa lu baax lu ne loo ko jiñ rek yelloo na ko ndax pas-pasam ci seen waajuru Cheikh Blan Mbacké jàpp naa it teel naa ñàkk waajur lool waaye teel naa am waajur lool ba mu gisul suñ Basiiru waajuru ba dane dan na Cheikh Blan jiital ko doy loo ko di rek jàpp ko doon ay loxoom doon ay léppam di ko doxal loo xam ni fa tarakalaawu ñëpp tangal ci bët loola war a bàyyam ni ni kon ren jikkat da koy tudde jàmbaar jooju nga xam ni pas-pasam ak diineem ngoram léppam da koo jeex takk ci kër Seexul Xadim Seexuna Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kon bu ko defee nu maasee jébal sëriñ bi kàddu gi xamaa kàddu yi soñer mu gàtt mu gàtt waaw يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الله وهو رحمن وهو رئيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع سفيه مصعب الغتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي قدمته وصورا ثم صلاة الله وسلامه على الذي مني له أقلام سيدنا سفينا المقدم عند الذي تسكن لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأماد والأسى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الآل والمآل بتكراري هذا وقصدي قمة تحروا أهل النبي بها كما تبروا نويت من سلام قمة تزر مسبقا به كفيت معاصر خدمت من رفع البرايا خدمة لمن بجاي كباني صدما أحمد على خروج من درر وكل سوء وأناء وخرر أشكر شكرا يجور سيدا بسلم ولا يجور نهي كيدا حمدا وشكرا لازمنا برورا رب الورى وزهزأ الغرورا فخمت ناس المجلس المقدمة مسليا بها على من قدما مرتجيا كوني قديم أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفعها بأي يريد أن ينتفع نبادني بلدازي waja